ñoom xam nañ ban bis la ñu woote xam nañ ban mois la xam nañ te ñooñee ko xam noonee ñii ay màgget lañ ñii ay ndaw lañ ñii ay paa te boo doon xool ci démb xamuñu woon politique bëgguñu ko woon. non Ousmane Sonko nag ci ndaw ñi la kii mais mag ñi moom. ah wallaahi yax si ma ko mel naas bul wax loolu. Ousmane Sonko. ah man de jàpp naa ne ndaw ñee ndaw ndaw ñee koy kii moom. non non déedéet déedéet déedéet. Ousmane moom jamono jii nii. Ah. Euh, loolu ngeen di wax gem bi. Ah, moo koy ah, loolu ngaa ka naan gem bi moo ko moom waaw Ousmane Sonko géemu politique bii nii moom mooy boroom moom. mag ña ndaw ñi ndaw ñi mag ñi paa yi ñëpp a ci yam ñëpp a ko nangul. Ousmane Sonko paa boo ko gis euh, néew na sax nga gis paa bu ko bu ko bu hmm. néew na ngay gis mag mu ko contour. Euh, néew na ngay gis gone bu ko contour. Hmm. ndax la tax mooy dañoo xam ne paa yi dañoo xam ne 1960 ba indépendance amee ba tey ñoom ci souffrir bii la dund fekk na leen ñu nekkoon ay mesures. Hmm. kii ñëw leer leen leen dafay jëlee coona yii ñu nekk hmm. ndaw ñi judd ci coona ñi judd lan deux mille quatre vingt dix neuf quatre vingt dix waaw gis lii fi xew hmm. ñu xam ne Ousmane mooy solution te mooy solution bi nag tey bari na yaa ngi wax ay mag ñu bari mais bari na kilifa diine yoo xam ne nag euh, Amadou Ba lañ àndal de am na ñoo xam ne sax moom wax nañ ko publiquement euh, waaw léegi ñoom am ñoo xam sax dañoo attaqué Ousmane Sonko tamit Ah, léegi ña ngi koy wax ñëpp. waaw ah. lu ñu représenté seen i kër yi bàyyi. ah bari na ñu wax ay ay ay xalifa général. waaw nekk xalifa général. tekkiluut nga def mooy mooy yamukaay bi nag. xam nga fa xalafa min baadihim xalfun daa'u salaat wa tabaau sahawaat fa sawfa yalgawna gayya. Hmm. illa man taaba wa amana wa amila saalihan ba ila axiri aaya. waaw ah. xalifa ngay wax. mën nga nekk xalifa te représenté woo sa kër baay dara représenté woo sa kër maam dara. Hmm. lépp pourquoi mooy nekk xalifa te représenté woo. xalifa mag la waaw ah. du ko ëpp baatin du ko gën a ragal yàlla du ki hmm. gën ci askan wi lañ koy tànn jox ko ko hmm. ay at la rek ay at nag ku ko ëppalee nga toog ca bërëb ab at yooyee ka fa war a toog ah. la ca des nag mooy ña représenté xoolal ba xam ku ku diiñ représenté dara mas naa xas Ousmane Sonko Ousmane Sonko koo gis ma xas ko ngay kilifa ngay nangam euh, nekkoo kilifa ndax képp ku responsable hmm. euh, xam dara doo contour te doo ko bañ ndax defut lu mu koy defut la loo koy bañe waxu la loo koy bañe hmm. ànd ak Amadou Ba nag yomb na kum neex nga ànd ak kala neex waaw kum neex àndal ak mais nag xaste du yoon te du dëgg te euh, alxuraan daa wax ne ida daxaloo xaryata nafsaduha wa jaalu aizata ahliha azilla wa kasalika wa inni mursilatun ilayhim bi hadiya fa naasiratun bi ma yarji'u mursalun falamma jaa sulaymana qaala atumidduunani bi maalin fama aataani allahu xayrun mimma aataakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun hmm. ñoom niti politiciens yi buñ digsee ci dëkk la ñuy njëkk a def mooy niti diine yi la ñuy toroxal ba noppi nañ leen di toroxalee nag mooy dañ leen di jox fa naa eh, bi hadiyatin fa naadira bi ma yarji'u mursalun Mm-hmm. addiya lañ leen di jox mooy ay alal suuf terrain nangam nangam yooyee lañ leen di jox di xool nag ñañ yónni woon bu ñu ñëwee lan la ñu indi mooy jeng gi nga gis. Mm. fa naasira bi ma yar jox amul solo waaye nag kilifa yem wat yem yemat dëgg bu ñu leen defee loolee la Souleymane defoon la ñuy def fala maa jaa Souleymane xaale atumit duuna nii ndax da ngeen may tëbb ci alal. Mm. atumit duuna nii bi maalim fa maa aataani allahu xayru mimma aataakum balantum bi hadiyatikum tafraun Ah. li ma yàlla jox moo gën lii ngeen jàpp ne seen alal yii ngeen di puukare woo ca ji ma ko jox li ma yàlla jox moo gën ah. ma ataakum balantum bi hadiyatikum tafawoon te yéen seen seen alal yii ngeen di puukare woo te ñun nag yàlla la ñuy puukare woo ndax am nañ yàlla hmm. ñi am yàlla di di nit dëgg te diiñ doo dégg ñuy xas kenn jéng gi nga gis ci réew mi yépp mi ngi fii nag mi ngi fii mu ngi ci diggante boobu mu ngi ci diggante bii ma la wax ku wax dëgg ak ku wax a fen képp a fen waaye ci lii la nekk Hmm. mooy li aay bi ma la wax te suñ borom wax ko. est dañ leen a nax rek gëmal leen nag Ousmane Sonko dafa ñëw ngir yàq diine ji dafa ñëw ngir euh, déstabiliser maanaam euh, fëkk xale yee yu mel noonu yooyu discours yooyu nga xam ne tàmm nañ leen koo waxal jamono bu nekk. non non xam nga loolu moo di doyadi. est loolu lañ leen gëmloo ko. non loolu moo di doyadi. Hmm. benn. Ah. man murid laa. waaw ah. taalibe daarul xuddus laa. waaw. Ah. yaa ngi dégg. ci askanu cargaan ci laa bokk. Mm-hmm. léegi man ndax ay nit dafa ñëw di woote wahabis wala muy woote salafis wala muy ab chiites loolu lu damaa tiital tiitalu ma fokku ma ndax xam naa Sëriñ Tuubaa mooy kan ah. te jàpp naa Sëriñ Tuubaa ba noppi nit mënta wax ma dellu gannaaw ci li ma fas ci Sëriñ Tuubaa ah. kon nit day kenn ko nekk la nga gëm loolee ngay promouvoir mm. même bu doon dëgg nag laa wax mm. même bu doon ne Ousmane Sonko salafiste la mm. am na droit ci campagnal salafiste yi ah. même bu doon ne Ousmane Sonko murid la am na droit ci campagnal Hmm. waaye nag njiital réew falew ñu ko kii lii la wala kaa lale la si gi yéefar la woon ah. ndax daa tee woon ñu fal ko déedéet fal nañ ko hmm. Abdou Diouf lu mu doonoon hmm. ab tiijaan la woon ndax daa tee woon ñu fal ko fal nañ ko sëñ Abdou Lahat ko samp ah. ba mu doon lim doon tey kon teewutoon ñu fal ko Ousmane Sonko mii geneen kilifa mën na koo fal te bokk ci réew mi waaye Ousmane Sonko salafiste la képp koy wax yaay naafiq yaay sala salafiste banut am na man sax du ma ne la yow yaay salafiste ndax salafiste bonut hmm. ab jullit la waaw ah. suñ tubaa lu mu wax wa ahbidil mumina lil imani wal tubxidal kaafira lil kufraani fala tahaadu man raaytu fa yuxriju laa ilaha illa allah képp ku génne ci gémmiñam baatu laa ilaha illa bu ko noonoo te bu ko bañ hmm. ñoom am na luñ gëm ci ñoo xam ne ñoom la ñuy référencé woo ci diine bu leen ko bañal nangul leen ko hmm. suñ tubaa am na lu gëm ci diine junay di mooy kilifaam ci euh, tasawuf moom lay roy ci tasawuf moo ko waxal boppam hmm. ci masaalikul jinaan bu dee fiqa Maalik la ciy roy mais kii roy Saafi'i ndax ak kii roy Maalik ndax dañoo war a am problème eh. non non waruñu am benn problème hmm. kii roy Ahmad ak kii roy Abu Hanifa ndax dañoo war a am problème amuñu benn problème kenn hmm. ku nekk la nga fas jàpp ko te gëm ko mu jeex lii ngay wax nii ay nax leen amu ci jéng moo fi am dara néew fi jéngal rek ka fi nekk waaye leneen néew fi mooy tëj bu nañ leen ci alal saytaane ñu taxaw di mel ni euh, ku li ñuy wax ku jëfru di wax di wax di wax di wax ba xamatuñ fañ fañ jëm rek loolu kepp la hmm. waaye ña diiñoon ba tey ña ngi diiñ ah. ña ragaloon yàlla ba tey ñu ngi ragal yàlla ña dëgg woon ba tey ñu ngi dëgg hmm. li ma la wax nag moo ci am ay kii xalifa la kii sëriñ laa kii nàngam sëriñ moom la suñ tubaa wax ca Masaalikul Jinaan rek ay hmm. bàyyi ki maam kenn du ci doon ak sëriñ sëriñ moom looy jëfal yàlla la ba doon ko ay xalifa moom ak mag la ci at képp waaye du jëf loo jëfal yàlla du lenn luy tax nga doon xalifa jeex balaa ma ñëw ci balaa ma génn foofu sax laay wax sëñ taxa dégg nañ euh, déclaration bi sëñ Bass def. Mhm. Euh, mu wax ne maanaam nit àdduna yi. Mhm. nañ ko may jàmm daal. ci mhm. ci ni ko euh, porte-parole bi waxee. mel na ni. am nay diggante yoo xam ne xawoon nañ ko sonal ci waxum politique ci waxum ay waxum yu jëm ci wàllum àdduna mu ne lool du liggéeyam mhm. liggéeyam mooy euh, li nga xam ne moom la ko fi sëriñ bi bàyyee kon ñee nañ jaar yu seen yoon moom tamit ñu bàyyi ko mu jaar yoonam yow mhm. kàddu yooyu xanaa moom ah loolu la ma moom mooy rafetlu ko te xam ne la mu war a def rek la def hmm. deful lu a def ah. ndax diggante ak boroomam toll na foo xam ne amatul jotak ah. di wax ci loo xamante nii amul njariñ amul bopp amul geen ah. mu xam ne diggante borom moo ëpp njariñ ci moom hmm. diggante nit àddina yi ndax wax na ko ci biir wax xam ne jàppoon na ne sax suñ borom du ko nattoo jaxasoog nit àddina yi ah. nit ci nit àddina yi moom jaxasoog ñoom du jul dara lu may tuuma hmm. ak ñu fexe ba déstabiliser la ci sa biir ak njaboot ah. ndax suñu daa moom man damaa yéem sax wax ji man bi ma ko déggee damaa hmm. yéege kaw ndax man xalaatuma woon ne lool sax de eh, nit eh, misaal waxuma moom waaye xalaatuma woon ne lool dina am waaye bi mu ko déggee da ngay xam ne ah kii kan ndakee kon am na ku koy yee ci biir lu bëggee nag yëfi saayir yi te suñu naa élection yii ñu jëm ah. wallaay bu ci waxoon bu ci bu waxoon lu ne dina ko dégg bu ci waxoon lu ne di yi dañ ko dégg hmm. moo xam kii muy opposition bi moo xam muy pouvoir bi moo xam muy nangam moo xam comme ci mën a waxal rek ah. addina ngàbb ko hmm. lii mu def rek a gën te lii mu def rek a baax hmm. euh, bu ma ñëwee balaa ma ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy biir Touba parce que am na lu ci bëgg a waxaat mm-hmm. dama ñëw ci ndaw ñi nga xam ne jamono bii ñu ngi jël gaal yi ñuy dégg ñu ñu naan dee nañ. Mhm. bari nañu dee ñu chaque jour ñuy dégg ñu ne tant de personnes egg nañ foofu la nga xam ne mooy Espagne ay centaines yoo xam ne wala nga dégg gaal goo xam ne sax bu njëkk da nga daan dégg gaal goo xam ne ay Maliens ngi ci ay Gambiens ngi ci ay leneen mais léegi da ngay gis gaal goo xam ne ay centaines de personnes te ñëpp ay Sénégalais la ñuy doon. Mhm. phénomène boobu nga xam ne mën nañu ne depuis ñu téye Ousmane Sonko ba léegi lañ ko commencé gisaat. Mhm. waaw loolu moom man dama leen ci encouragé. ah encouragé ci soobu ci géej gi. waaw man génn réew mi bokk. ah dama ci ami gone. Ah. yoo xamante ni dañuy dem ñii dañuy dem ci Nicaragua gi. Ah. muy yoone États-Unis ñii dañuy hmm. dem ci gaali hmm. man ci sama jëm. Hmm. ñoo may jox. ma mën a am ci bara li may am. léegi bu ñu amul nooy def. kon bu ñu ñëwee yow diis la seen bopp la nga ca man mooy ñaanal leen te garanti leen suñu àgg. ndax réew mi moo yàq mais ñi des ci géej gi bari na de. ah loolu moom moo kaa suñ hmm. borom binduñu ci ay nooflaay hmm. lu dul ne dañoo bind ci coono hmm. ñooñu dañoo jihaati woon mooy fàggu ji lu dañoo jegoon ngir fàggu ji lu lew suñ borom des dogal ñoo des ci géej gi fotu euh, état bi la bu defoon lam war a def liggéey ci réew mi kenn du dem ci géej gi foto état bi la mais nag loolu waroo ko encouragé de. ah kay